والجل والدجال في سوداني في زرق bokk julli fi daje yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen baalu àq waaye tamit di leen baalu àq di am mbégte ci teew gi ñu teew fii nag tey te teew fekk suñuy bokk ak suñuy xarit ak suñu bokki taalibe bokk na ci bokk yi sëñ Mourtala bu Cheikh Abdou Lahad ak sëñ maam Cheikh bu sëñ Fallou xam naa gannaaw sëñ Mourtala ngi moom dama koy ubbi rek jox ko mu àggale ndax war naa mën a wax ci diine ji mën naa war a wax ci réew mi war naa mën a wax ci tariixa bi ndax bàyyam murid la te sëñ Mourtala mi koy itam ku xam na ko fi mu féete woon diine ji ak sëriñ bi ci wàllu liggéey. te jonjoo woon naa moom ba xam lam bëggoon xam lam bañoon te njaboot sëñ Tuubaa yëpp gen la koo ci dund rek mën a dund ci des ñi sonn nag bari na waaye li leen sonal mooy loolu rek koo xam ne mag dalaa jur ba noppi mag yar la nga bëgg a dox aw doxinam te doxin boobu tu jamono foog nga sonn foog nga sonal nit ñi waaye ñu xamee ko noonu rek xam la ku li sëy nag dañuy wax tuuti rek loo xam ne dama koy seere loo xam ne maa ko waxaloon sax bopp te ñëpp wax nañ ko ñëpp dañoo wax ashadu an laa ilaha illallah di ay jullit kon diine sañ nañ cee wax lu koy defar waaye sañ nañ cee wax lu ko yàq wax aslamtu nafsi itam di taalibe sëñ Tuubaa yoo xam ne tareex bi luñ ci xam luy defar sañ nañ ko wax waaye luñ ci xam luy yàq sañ nañ ko wax dooni Sénégal yor dante Sénégal di citoyen ci réew mi kon réew mi itam kasaalika lu ci yàq war nañ ko yàq war nañ ko wax foofu la ñuy waxee diine nag dafa am ay pie muy muy ñeenti pieds wala juróom mooy tamit jiitu mooy saadatu an laa ilaha illallah boobu bis bi nga ko waxee ba bi nga fiy jóge ak ay aju ci moom amul senn saa yoo xam ne daa war a jóg ci sa xol wala soo làmmiñ bis ba nga ko waxee ba kenn nga fi jógee moom du jóg ci sa xol ndax bu ko jëlee rek nekkatoo jullit ba ca toppitam mooy julli iqaama salaat julli bis bu set la waaye du waxtu yëpp nag boo seetee bis bi li nga ko yëpp yëpp boo ko calculé du ëpp waxtu ak ñeent fukki ndax julli ak moroom ji fi ngay fi fi ñuy nodde ba fi ñuy mën ko def ñaar fukki minute juróomi ñaar fukki minute nag mooy waxtu ak ñeent fukki minute yaakaar mooy waxtu ak ñeent fukki minute yaakaar naa waaw kon wàccut kenn moom itam ba ci mooy mooy mooy mooy mooy mooy koor koor at mi benn yoon la ci doon wàccut kenn xanaa ki feebar wala ki tukki te su ñëwee da koy fay bu ci topp mooy asakaatu natt asaka kooku nag nisaab boo amee nisaab dalaa war soo ko amul waru la aj màkk nag benn yoon la ci sa dund bi farata mu ne sa ilay sabi lañ la wax ko ko man ko ne benn yoon koy def sawat noonu mu demee nag yoonu murid itam ni la deme daa am lu ko sosoon te la ci jëkk mooy ak gëm ak pas ak bañ ak nangoo liggéey ak jaamu yàlla garab nag la ko saxal lu ne moo koy suxat yooyu nag suñ ci bëggee bàyyi dara dara sunu murid day fay des kon nañ doole suñu pësteef doole suñu jaayante ak sëñ Tuubaa lim bëgg ci dëkk bi ñu koy bëggale lim bañ ñu def ko bañ le lii ko def mën ngaa mucc te mucc yombul nag ci jamono ji ndax am na naar yu wax ne boo bëggee mucc ci xaw jamono fi mu toll ni da dem ba ci kaw nga teg yéegu braas dem dëkk fa wala nga gas ci suuf te xam nga kenn mënu ko def di dund nag loolu lu mat a leeral la jamono yi nag lëj na tëj ndax fi mu toll dañuy wax ne jamono yi li li yées ci àdduna mooy noor buy nawet nawet ak nawet buy noor noor fi mu toll nag ci lañ toll nit ñi ñi nga xam ne ñoo nit diine dañoo bàyyi diine je jëm ci tubaab gi tubaab itam bàyyi tubaab gi bëgg a jëm ci diine loolu mooy yàq lu baree bari lu ñu war a xam la te di di ko bàyyi xel am na magum sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall ku ne xam na ko diggam ak sëñ Tuubaa ak pas-pasam ci sëñ Tuubaa am na lu mu bu yàgg yàgg bu agsi itam day mel ni jege na ndax newoon na ab yëlbu ko dana ñëw ñetti yoon ci kaw jamono bu ñëw yëlbu bu jëkki bu jëkki bu ñëwee dafay fekk kilifa koo xam ne moo koy dàq ba mu dem wala moo koy fekk ba du dikk bu ñaareel bu ñëwee itam dafay fekk kumbrus bu kooka bu tinoo ñu bàyyi ko bu ñetteel bi nag nee kenn mënu ko kootee def te bu ñëw day indaalee ñett paaka boo xam ne ci lay dog bokk gi bokk gi dox suñu diggante ci paaka la koy dagge wutale ko xaalis moo xam ne da ngay dagg bokk dangay ngay jaay sa mbokk ngir alal loolu ko ne gis na ko fi mu toll ne day gàddu taxasam taxas gi tam da koy miire jàkka yi ba kenn du jëf julli kenn du jaamu yàlla loolu itam ko ne am na ko gis na ko mu ne siwo ndox itam da koy indaale ndox boobu nag da koy ture jàngukaay alxuraan yi ba kenn dootu jàng alxuraan kon day mel ni loolu loolu jege na te mu ko waxee léegi ay at at la xaj na nag suñ tubaa gi mu agsiw ci ndax am nañ kilifa gu mat kilifa muy sëriñ Muntaxa nangul woon ñu tëj jàkka yi ak lu mën a xew moom nangul woon ñu tëj jàkka te sëriñ tubaa dafa am ñaan gum ñaanoon ci dëkk bi mbooloo mu fi saxal julli juróom te suñ ko tuyoon day mel ñaan googu tam loolu nag yàlla dimbali nañ ci ba euh, mucc nañ ci xaj na nag daj na Sénégal fu ne xaj na nag euh, nun ñu nangoo wéy ci ndigal sëñ Tuubaa yàlla mu ñu lu mat a bàyyi xel la kon mbokk yi wax ji dugut ndax sëñ Murtaa ngi ni toog li ci toll li ci li ci topp liggéeyal sëñ Tuubaa day lu mënta ñàkk tey lu tey tey tey tey lu war ci suñ suñ digg ak suñ digg moom yàq gi am ci jamono ji tam lu mat a moytu ndax ay bokk koy def bokk yi léegi kenn xamatul fu ñu jëm kenn xamatul lu ñu niru waxoon naa ko fii bar nañu jaay seen ngor jaay seen diine ngir alal dama koy répété duma ci dellu di ko wax duma duma duma ci dañ dama jël sama responsabilité am na fi ndax euh, téléphone yi dafa bari dangay wax sa wax ju rafet ñu moomale kenn wala mbokk ñëw filisi la ba noppi di woote waat ñeneen hmm? mm-hmm. di jaxasey bokk man ragaluma ko may yàlla gëmuma ko may sëñ Tuubaa dund ak dee laa yemale ndax xaj na bu ma newoon naa sëñ Saliou maa bëgg a dëkk yow àddina ak àllaaxira kon bu ma demee fekk ak moom du ma am problème kan foofu sax mooy dàq fii li may wax day leer nañ te xam naa ñoo bokkal pas-pas yi ñoo ko bokk ku yaakaar sëñ Tuubaa tamit dëgg ci yow dund ak dee nga war a yemale ku yaakaar sëñ Tuubaa tamit dëgg ci yow diine war naa jëral lu ne ku yaakaar sëñ Tuubaa tamit dëgg dëkk te dëkk bi nag ñi ngi koy ñaay ñi ngi koy yàq ngir alal doo nga tax ñu koy def loolu nag nañ ko moytu yi bari na lool ku nee ngi woote waaye gisoo ci bu tane Touba ca kanam ndax li am lépp ci sëñ Touba la koy def kon nag ku dib julit ku dib taalibe ndax day mel ni ku yi ci bari privé la waaye eh, Touba ca kanam eh, public la ñëpp a ko bokk ngi defaral ñu néew doole ñi mi ngi defaral ñi am doole ñi mi ngi defar dëkk bi di ko leeral loolu naa doon naa ko eh, jot li li des ma bàyyi ko sëñ Mourtada wasalaamaaleykum wa rahmatullah jox suñu bopp sëriñ bi rek mm-hmm. si sëpp tànk yi ci diine na ko suñu wajuree woon ni ko sëñ am sa wax amul leen luñ ci war a teg ne ko suma kilifa ga daan waxee rek na nga góorgóorlu ci li yàlla santaane nga fas yéene di ko def te yow tere nga fas ko yéene bàyyi digaleel yàlla nag moo ñu fi bàyyi tere yàlla it wax dëgg yàlla ab jullit war na koy moytu saxal ndigal yàlla it moo gën saxal ndigal kenn ku mën a doon ndax suñu sëriñ ba day lii dafa dellu si waat rek lan na fi newoon rek moo fi newoon sëñ Tuubaa fa mu jaaroon ñoom tey jii la gën a leer koo xam ne da ngaa ànd ak say noonu dem ba ci digg géej gi ñu tere la julli moo jaral la nga sànni saf der ak loolu ci fekk baax na kooku daal yaakaar naa ne won nañu yoon sancub dëkk it def fi jumaa joo xamante ni foo toll ci réew mi di ko gis kon kooku ku ñëw ne la dama lay tere jumaa mook terroriste yee yore seeni fitan ñoo yem te jot naa ne faatu moom benn yoon nag lañ koy defe te lii xew ci réew mi ñu terroriste ci jullit yi ba mu jaral leen ñu tëj seen jumaay ak seen jàkka yi jëru ko dee rek lañ ciy ragal te dee moo benn yoon lañ koy defe kon delloo si leen seen bopp seen xel xam ni dañoo jaayante ci lislaam joxe sa bapp joxe sa bakkan saxaaba yi àndoon ak yonent bi de bis bu set seen bakkan daana tuuru ngir taxawal lislaam sëñ Tuubaa jaraloon na ko lu ne noo am joojee ko yóbbu woon ba tey jii mooy sunu ndox. Mm-hmm. Tuubaa moom waxtu jot lépp ci loo xamante ni lu jëmul ci diine nee nañ ca ndox anuñ caat kenn. Mm-hmm. kon nag nañ jëloo suñu bopp te xam ne diine lañ am islaam lañ am sëñ Tuubaa lañ am mm-hmm. dëkk bi it lañ am. sëñ nag la mu waxoon rek foofu lay tëj waxoon nag Abdou Assis weer wii ne ko man de loo ma wax xam naa ne dëgg la waaye lu la keneen wax dëgg la nag yàlla defal ko kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullah